di soppeeb sëñ Mbàkke ma maam soxna Lo Jóob Taayif tey ànd ak sëñ Muntaxaa ci liggéeyal sëriñ Tuubaa saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool ci dëgg te yéene ñëpp jàmm di ko ñaanal réew mi di ko ñaanal addina bi di ko ñaanal jullit yi ne ci biir yëpp waaye di ko ñaanal kilifay diine yi nga xam ne ñoo nekk ca sunu réew mi di senegal ak fépp ci addina bi di ci jiital sëñ Muntaxaa Mbàkke di ko ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér-gi-yaram ndax ci la suñ jàmmi àddina ak àllaaxira nekk nit ki nag lu jàmm jàmmi àddina ak àllaaxira nekk loola da ko war a téye fukki loxoom ak juróom kon ñaanal suñ Muntaxa waajib la ci bépp jullit rawatina ab murit bépp jullit rawatina murit ndax acte yi muy def ci lislaam di ko partagé wu ak ñi nga xam ne ñooy àddina bi loolu njariñal mbindeef yi la waaye du njariñal boppam ndax bu doon boppam dong moo ko ñoroon xam na yàlla jàng na yàlla mu ngi topp yàlla kon la koy jariñ dana ko mën a def waaye dafa donn maamam sëriñ tubaa ndax sëriñ tubaa dafa taxaw ne simaamul waraa xasri la dallaahi fi yaddi njariñal mbindeef yépp tàllal naa sama loxo suñ borom teg ko ci mu dellu waxit ne ya umu nii ridwaanu min kulli wijhatin foo ku baax nekk lu baax lu mu yor yàlla dajal na lépp teg ko ci sama loxo kon bu taxawee it confirmer ko ci yaa raxmaanu yaa raxiimu ba àgg ci yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamihal wara yaa haadiyan radaa tudd yàlla kañ ko bàkk ko ci turam yi gën a màgg ba suñ borom bu doon doomu aadama day mel ne li ko sëñ Tuubaa wax maanaam yëngal na ko bam mu ci moom ba na ko loo ma ñaan danaa la ko may waaw ba mu ko waxee loolu ba na ko loo ma ñaan may la ko nag léegi ndax sëñ Tuubaa ñaan nga da ko yemale ci boppam wala mu yemale ko ci njabootam wala mu yemale ko ci aw askanam walla mu yemale ko ci murid yi wala mu yemale ko ci jullit yi déedéet irham jamihal wara la wax irham jamihal wara yaa hadiyan rada te ku gis ni mu tënke xasida rek xam ne sëñ Tuubaa ko amal ñëpp aw yu la amal ñëpp jàmm te yaa rahmaanu yaa rahimu yaa rahmaanu yaa rahimu boo ko xoolee baatu rahmaan addina bépp ci la ñuy jëriñu ñi gëm ñi gëmul ñi topp ak ñi toppul ñi gëm ñi wetti ñoom ñëpp ci baatu rahmaan bi la leen suñ borom téye baatu rahim bi nag mooy ñi doon def jëf ju baax muy jullit yi ñooñu ñoo moom rahimu gi rahmaanu gi moom ñëpp ci lañ bokk waaye ku dul ab jullit si yaa ngi ci biir waaye nag ci àddina la yem képp koo xam ne it génn nga àddina te soxoo woon ci jaamu yàlla teg ko ci sunna si yonent bi wa sallam rahmaanu joojee ci àddina rek la yem ak yow waaye rahimu ja nag bu boobaa mooy kont ca ñooña mu mel ne kon doxin woowu muy dox doxin wu mu am ndigal la doxin wu mu jàng la doxin wu mu donn la moom sëñ Muntaxa Mbàkke ba mu fi toogee ba fi mu ne lenn lenn lu soppiku ci doxinam ak doxin sëñ Tuubaa wala doxin sallallahu alayhi wa sallam amul te nag ci genn wet gi cadre doomu aadama la yore day dégg day gis te xam na yàqu-yàqu jamono fi mu toll nit ñi seeni làmmiñ dafa tinkiku nit ñi seeni loxo tinkiku nit ñi seeni tànk tinkiku seeni xel tinkiku seeni noppi tinkiku fu ne lañ koy dugal fu ne fu ne luñ ñemewut a wax amul fu ñemewut a dem amul luñ ñemewut a jël amul luñ ñemewut a xoolit amul waaye fekk na maamam nag faggu loon ko faggute koo xamante ne si sëñ Muntaxa xam na ko ba loolu fi ne la ànd ak jullit yi loolu la téye murid bi ndax sëñ bi dafa am bayit mu wax woo xam ne si boo ko comprendre te dégg ko dégg dégginu arab da nga xam ne sëñ Tuubaa mii du waxantu ndax dafa wax ne jihaadi yantaha wa tajri raabihu waliya laa yaxsidu kalbun naabihu loolu ñu dégg arab xam nañ ko mu mel na dafa wax ak murid yi ne leen man kat sama jihaad jeex na takk li ma waroon sama digganteeg suñ borom def naa ko ba jeex na takk samam njaay it jar na ndax li ma doon jaay lépp suñ borom jënd na ko te fay na ma ba maa ngi nii téye sama bénéfice yéen murid yi maa ngi téye sama bénéfice wa tajri raabihu waaye lan la ci sëñ Tuubaa teg waliya laa yaxsidu kalbun naabihu kon sëñ Tuubaa gisoon na mille 2021 bii li ciy xew nee na xaj yi ñëw ëllëg di baw duñu ma jublu mukk ba sëñ bi wax nag waxul këlbu yii di yor ñeenti tànk ak i nappam ñi yore jikkooy këlbu yooyu ñoom la sëñ Tuubaa wax na bu ëllëgee baw gi ñuy baw duñ ma jublu ñoom kon coow lii ngeen di gis lu nekk nit taxaw di ko yëkkati kàddu lu nekk nit ñeme koo wax léegi muy réseaux sociaux yi muy nit di ko wax directement jëmale ko ci li nga xamante ne si moo yoon ni sëñ Muntaxa di ko dégg na dégg kooku yor na muñu suuf ndax sëñ Tuubaa wax na kat darajat yi bilantihaa i yarfaxu walaahu lii bilantihaa i yanfaxu man sama daraja waxtu jot yàlla da koy gën a yëkkati muy gën a kawe ba faw bés bu set may def loo xam ne si day tàngal xole ñi nga xam ne jubluwuñ mu mukk darajat yi bilantihaa i yarfaxu waaye lu mu ca teg wallaahu lii bi leen tixee yan fahu njariñ yi may seq ak suñu borom mu dima ko jox waxtu jot ba addinay tukki suñu borom waxtu jot da ko yokk waaye du ko wàññi kon ñaari baat yooyu rek bu ñu ci yemee nun murid yi dañuy am sens moo tax yenn wax yi jërul déglu jërul tontu jërul naqarlu jërul déglu jërul tontu jërul naqarlu ndax ki wane gannaaw wane na gannaaw te kenn mënu koo indi waaye li ma ciy dalloo seen xel mooy nit ki du ceegi ne lu waay wax rek mu ne kii yow lay wax kii diw lay wax wala man lay wax déedéet dafa am kilifa ak Baay Faal goo xam ne dafa joxe message bu am solo bu amati solo wax ne am murit wër ñàkk fayda wayefal boppam ba lu wax rek mu ne kii maa ko tax di wax déedéet nee na bu nit waxatee la muy wax da déglu wax ja ba mu wax ja jeex su fekkee ci yow la jëm nga jariñoo ko bu fekkee jëmul ci yow nga bàyyi koog ña muy waxal loolu nekk lu am solo loo xam ne si tey bu ci murid yi concentré woon coow du yi te xam ne sëñ Tuubaa comme déranger fokk nga am problème ci àddina ndax waxtu wu jot li ko bañ a day yokk mais du wàññi ko ndax moom ci yàlla la tegu ak siraata mustaqim ku bëgg yonent bi nag da nga bëgg sëñ Tuubaa képp ko xam ne bëgg nga yonent bi te bëggoo sëñ Tuubaa la nga wax ci yonent bi du mooy li wér waaye képp koo xam ne nga di wax ashadu an laa ilaha illa allah di def iqaami salaat di def itaa i sàkkaat di def sawmu ramadan def xajjal baytullahi alxaram tam wóor la ne loolu sëñ tubaa du ci sa morom bu fekkante ne dëgg la ci yow confirmation bi mooy nga nangol sëñ gëm sëñ tubaa waaye bu fekkante ne nag nee nga yaa ngi def yooyu te gëmoo sëñ tubaa la ngay wax du dëgg ci yow kon loolu dafa war a leer sëñ tubaa lim am da koo bokk ak jullit yépp waxoon naa leen léegi na bi muy ñaan ba kañ yàlla irham jami xal waraa la wax kooku kuy luy dund yaa ngi ci biir mu mel na nag li ñu war a dalale sunu xel ci sëñ Touba ba tey wax na ko sëñ ma Lamine Diop Dagana ndax dafa ne ko Ahmadou mu ne ko waaw mu ne ko xam nga li ma yora mu ne ko ah, ma ci dimbalee ma jël mu ne ko waxwal xaaxiru fawqa xibaadi yi boobu yàlla wax ci alxuraan nga xam ne moom rek moom moo ko moo ko moomal boppam nga xam ne dafa wax ne benn jaam tawuma mu ne aw mu ne ko loolee man ci sama wàllu bopp man Ahmadou mii la ko yàlla rafaatale mu ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko benn jaam tawuma ahmadu mu ne ko mbàkke mu ne ko képp koo gis ci àddina muy wax lu juunu wan ma gannaaw mu di leen naqari kookee bu leen jàpp ne moo ma wan gannaaw de ma gannaaw ahmadu man maa ko soxlawul waaye ahmadu mu ne ko waaw mu ne ko jaam bu ma soxla woon tey nga fanaan si fii tey da nga fanaan si fii kon kuy waxati ñun nañ bàyyi xel ci ne kooke sëñ tubaa ko soxlawul ndax sëñ tubaa du waxantu nañ ko bàyyeeg la muy wax ak ña muy waxal nga fexe ba mu bañ la caa wàll wala mu bañ la koo transféré loolu daal mooy li nga xam ne tey moom laa bëgg a ubbee waxtaan li waral nag tey may def ormay Touba ji kenn ci sëti sëñ Touba moo tax ma def may def orma ji tey ma déglu ko biig wax ji dugg ma lool samay waxi pas-pas di waxi yéene di waxi xol te waxi njariñ la yet loo xam si dafay jariñ jullit yëpp te it day encouragé jullit yëpp sa day dalal xeli jullit yëpp rawatina murit yëpp te nag acte bu am solo la def te nit ki nag su defee lu baax dañ koo war a yëkkati wax ko ca kaw ba ñëpp dégg ko ndax wa amma bi nixmata rabbika fa xaddis te man la lam yaskuru naasa laa yaskuru laa ci hàddis boobu rek man laa teg lii may bëgg a wax kooku mooy kan mooy sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ bu Mbàkke sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ bu di sëtub sëriñ Tuubaa di sëtub sëriñ Masamba Buso di doomi sëriñ bu Mbàkke di yëngu ci liggéeyal sëñ Tuubaa ci di nettali jaar-jaaram ak i xasidaam ak a leeral ak a dimbali di ñi ci ay ñaan te waxtu jot mu jël temps di ko ci def kon kooku dañ koo ameel njukkal ameel kook cant te man ci façon boobu lay doxe nit ku nekk loo def muy lu baax dama koy béral béral googu nag moo tax tey ma yëkkati kàddu jagleel ko lii nga xam ne tey mooy ormay Tuubaa ndax acte bi mu wax démb bu duggee ci noppi murid yëpp seenum xel dana dal te man li may wax ci fan yi yëpp xel yu dal da nga tax may wax te xel yu dal mi ngi ci nga wóolu sëñ Tuubaa nag wóolu gu wér bañ koo di di gëmantu gëm gi nag mooy ànd ak kóolute gëm ak kóolute ñooy ànd te loolu lépp sëñ Abdou Samad résumé na ko démb ci peste bi nga xam ne xewoon na fi ci at yu yàgg yi nga xam ne buñ ko méngalee sax mi ngi tolloog mille neuf cent dix neuf jàpp mille neuf cent vingt comme nii nga xam ne ni la ni la jàngoro ji duggee ci biir àddina bi ci jamono bi ak at yi boo ko xaymaa ci jamono ja peste bi ñëwee ñëwoon bi bi mu dellu siwaatee ci contexte bi mu ngi toll daanaka ci téeméeri at fi mu toll wala téeméeri at ak benn waaye sëñ Tuubaa mam jamononte loolu tam doon yaakaari jaam yi ñëpp topp ko te sëñ Tuubaa lenn loraange du ñëw ci moom saan nag xen bi laa dara la bi nga xamee ne yàlla dogal na jàngoro ji nekk ko loo xam ne sii képp ku mës a dal loo am am cër tubaab yi dañ lay jàpp yeew buum ci sa tànk takk ciy fas daw ak moom ba ca àll ba taal néeg yi nga dëkkoon dañ koy taal dëkk bi dañ koy taal nit ñi dañuy toog xam nga loolu metti na mu fekk fi sëñ Touba dégg nga la ci sëñ Bay Jaxate def ci xasidaam gëm bi noonu muy xasida wàllu ga waaye bi yàlla dogalee am jenn jëmm jum dal ci kër sëñ bi wala ci menn magi taalibe dafa génn dem ba ci bitti mu tëdd fa nga xam ne tubaab yi dafa wax ne bu ko kenn jege ci ni ko sëñ Abdou Samad nettalee muy lu am solo biñ ko waxee sëñ bi sëñ bi dana ñokket na da koy seeti fa mu tëdd bi mu ko jubee mu ne sëñ bi bul agsi sëñ bi bul agsi sëñ bi bul agsi sëñ bi agsi bi sëñ bi agsee laal ko mu ne ko bu ma laal ndax sëñ bi yow da ngay njëriñal mbindeef yi te jàngoro ji gis nga ne day walle moo tax ma bañoon nga laal ma moo tax nga bañ nga jege ma sëñ bi teg ci loxoom ci kawam rek jàngoro ja mel na dafa jékki-jékki ni murit mel na mbalaan muñ muróon rek naaw mu jóg ne xënét ne ko mbàkke mu naaw mu ne ko ko faatu yaa rey ndax lii ba nga ko mënee boo ko defoon ñëpp tey lii di lii di am du fi am kon nag lii loolu moo répété waat dellusiwaat ci sëñ Muntaxa Mbàkke mii te it sëñ Muntaxa da ko def ci tawxiid tawxiid bu mat sëkk ci annonce bi mu def boo ko gisee lépp da ko delloowaat suñ borom kenn mënu koo tuumal diggam ak boromam kenn mënu koo waxit loo xam ne si da ko ci conteste da ngay def da ngay jël conteste bi wiire ko ci ne moom dafa dafa dafa wàcc ay droit am déedéet ñaar yëpp la boole wabtaqi fii ma atayka allahu daaral axirata wala tansa nasibaka min ad-dunya sëñ Muntaxa fi mu ne guddi yiñ toll ak na ma ko xamee woon ak ba fi toll loolu lay dund mu ngi àddina di ko bàyyi xel ndax ci lay jaamoo yàlla di ci dimbali jaam waaye fàttewul këru àllaaxira ga ñaar yooyu nag képp ko ko boolee di ab jullit di jiite mbooloo yaa nga ca yoon wa di dox moo tax amul lenn lu ñu tëral ci réew mi te ay luwaa di ko doxal te sëñ Muntaxa participer wu ci participer wu ci ba ci lii nga xam ne moom la doon def lu barki démb muy wàcceelu xasida yi ak jàng alxuraan loolu muy def loolu lépp gis nga ne ba mu koy def dafa respecté mesures barrières yi ndax mi ngi takk masque am na mu ko war a takk te la ko jiitu génnee na alalam def ci boole koog di li nga xam ne moom la ko ci lislaam sant def na ko te juuyowu ceeg borom moom juuyowu ceeg ñi nga xam ne ñoom la bokkal àddina bi loolu nag mooy njit kon ku mel noona su fekkante ne def na lu mel noona te lii mu def lu di njariñal ñëpp ñi ko gëm ak ñi ko gëmul ñi ko topp ak ñi ko toppul seen njariñ la ndax xam jami la waraa moom génnewul kenn ki nangu ci la bokk ki nangul ci la bokk kon loolu bu sëñ bu Samad ñëwee indi exemplaire boo xamee ne nii nit ñi mën nañ cee gën a dëgëral seen gëm kooku gàcce ngàllaama dañ koo war a taxaw yëkkati suñu loxo ñun ñëpp sargal ko gërëm ko. am na solo lool te gu dégg àll bi mu waxee xam ne kii li muy wax du wax ju muy làmbatu du wax joo xam ne si da koy ne bëgg lu neex na ji mu di ko wax jëralu ko ko waaye yéen a gi sëñ taxaa yéen a ñëpp jàmmu ci la koy jàppale ci liggéey boobu. yëkkati kàddu yu am solo yooyu te képp ko dem ci internet bi xool ko danga dox ba dajeeg élément boobu su ko defee bu ngeen ko dégloo rek ni ngeen ko war a dégloo rek lii ma leen di wax nii mu ma yëttee la ba ma yëkkati kàddu di ci di ci di ci joxe loola yéen noonu yi ma koy dundee ni ngeen koy dundee incha allah di ñaanal ñi nga xam ne doon nañ ñëw nag ci ñaan gi ba yàlla dogal siin bakkan def yéene jañ amoon a ñëw ñoo ñi fi toogoon doon jëfe ndigal li ñoo cay bokk ab atte ndax yàlla sàkk bakkan sàkk waxtoo muy faatu yàlla sàkk doomu aadama digal ko moo jinne ne wama xalaxtul jinna wal insa bu li yaxbuduni digaluma jinne ak nit ludul ludul ludul ñu jaamu ma jaamu googee nag moo waral lii sëñ Muntaxa doon def barki de mu xam ne moom doomu aadama la ci ndigal lay wéyee yàllaay buur yàllaay karim yonent bi yonent sëriñ Tuubaa di liggéeyam katam mu jël lépp wakkiirlu ko ci yàlla jaare ko ci ñooñu nga xam ne ñooy buntu yi nga xam ne ñoom ngay mën a àgge ci suñu borom kon nag ñu ngi taxaw foofu ci ormay Touba di ñaanal xalifa bi mu yàgg fi te lool ak njaboot gi yàlla jële fi jàngoro ji ba kenn dutu ko dégg ñu màggal ci jàmm gàmmo ci jàmm activité diine yépp ñu mën koo taxawalaat ndax mooy bunt bi nga xam ne ci la jullit yore ngànnaayam di di xeex lépp loo xam ne ci lu koy lu koy lor la in nuridu al islaaha ma statatu ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngeen